baabun li ab bunt la fii man ci koo xam ne lam yajid amut alma ndox wa sifati tayamum yi ak meloo tiim ku amul ndox ba nga xam ne tiim mooy farataam ak naka lay tiime ci la ñu bëgg a dugg waaye ñàkk ndox dong bokk du moom dong mooy waral tiim am na leen li koy waral ni ki wéradi waaye dana ñëw ci biir daal ak tayamumu tiim yajibu dana war li xadamil maa yi ngir ñàkk ndox fi safari ci tukki ba fi safari ju ci ab takk bu tukki wut tam noonu la maanaam daal saa yoo xam ne amul ndox mbaa la am ci ndox doyut su ko tàmbalee woon tam day jeex te laab gi du mat kon su boobaa farataam mooy tiim moo xam ne day tukki moo xam tukki wut ñoo ci yem ida ya isa ndeem naa ba na añ yejju defoo mu am ko fil waxtu ci waxtu wa bu fekkee waxtu yu jot na amul ndox te yaakaaru ko am ci waxtu yépp kon jarul muy yeexee dara say ba mu daal di tiim rek fekkee da ko yaakaar am moom daañu ko wax ci kanam waxat yee ji bu amaana mu war ma xaw joot yi ànd ak amum ndox ida lam yaqdir ndeem atanut xalaa masihi cig laalam fii safarin ci ak teew fii safarin ci ab tukki aw xadarin wala cig teew li maradin ngir tawat maanihin ji aji tere laal ndox aw maridin wala aji tawat yàq dilu jëj dana àttan xalaa masi yi cig laalam walaaye jidu du am mën koo xam ne yunnaa bi dafoo dana ko jot li iyaahu moom ndox ma nee na léeg-léeg sax nga am ndox ba àggal tiim doon sa farata da koy waral mooy am nga ndox waaye danga am ne wéra digoo xam ne boo jëfandikoo ndox mi rek benn tawat dal la woon waaye dina la dal mbaa tawat jala daloon dana yéex a wér mbaa dana gën a metti te loolu xam nga ko ci sa bopp bu baax a baax mbaa docteur bu xam faj wax na la ko su boobaa kon na ngay bàyyi ndox mi tey tiim mooy sa farata wala sax yow boo amoon ndox mën koo jëfandikoo waaye mënoo koo wuti te amoo ku la ko andil waaw ngaa wéra di wéra di wax mën laa jóg wutali sa bopp ndox te amoo ku la ko andil boole ci ba tey kon moom it day tiim rek wa kazalika naka noonu musaafirun aji tukki yaqrubu ji dafa jege min hu ci moom almaawu ndox wayam naaw xoo te koy tere min hu ca ndox ma xaw fu lu soosin ragal ay sàcc aw sibaayin wala ay ndegment ba tey nee na bu fekkee ne da ngay tukki mbaa tukki woo waaye xam nga fa ndox mu nekk waaye dangaa ragal ne boo ci dee wuti am na ay sàcc yu sàcc sa alal wala am na ay ndegment ndegment ndegment mooy rab yu fàdd am rab yu fàdd yu la mën lor ci yoon wi ba tey kon nee na kenn du la wutiloo ca ndox ma kon ay tiim rek tiim mooy sa farata wa ida ay xana ndee wóolu na al musaafiru aji tukki jooy bi bu jël maay ci amuk ndox fil waxti ci waxtu wa ak xara kon mu yeexa ilaa axirihi ba ci mujjëm nga nee na bu fekkee ne waxtu wi dafa jot amoo ndox waaye jàpp nga ne moom faaw da nga ko am balaa waxtu wee jeex moom dalaa wóor ne moom amoo ndox fii mu nekk waaye da nga ko am balaa waxtu wee jeex mu ne kon dañu bëgg rek nga bañ a tiim fi saasa te bàyyi ba waxtu yu bëgg a jeex su waxtu yu bëgg a jeex nag te ndox ma nga yaakaaroon ndox ma nga wóoroon na nga ko am nga am ko kon baax na nga jàpp bu fekkee nag amoo ndox moomu nag nga daldi tiim wa in yay sa ndeem naagu na mun ci ndox ma teyam moom mu tiim fii awali yi ci njëlbeenam bu fekkee waxtu yu jot na amoo ndox te yaakaaroo ko ba kere waxtu yu jeex li nga jàpp daal mooy ndox moom doo ko am moom ba kere waxtu yu jeex kon nee na say boo daal tiim fi saa sa julli amut loo ci yeexee way lam yekkun dem nekkut xindoo fa moom min fu ca ndox ma xil mun benn xam-xam tey moom kon mu tiim fi wasat yi ci digg waxtu wa nee na bu fekkee waxtu wi daa jot amoo ndox waaye da ngay xel yaar waxam da nga ko amum doo ko am deng deng daal moo nekk ci yow dëgguwoo ci am gi dëgguwoo ci ñàkk gi am balaa ba kere waxtu yu jeex kon nee na dañu bëgg dañoo sopp nga bàyyi ba waxtu yu xaaj su waxtu yu xaajee te nga am ndox baax na su fekkee amoo ndox na nga door a tiim kenn ku ci nekk li ñu ko wax ak soppoo rek ñett yi nga weesu yëpp ki wóolu amul ndox ak ki ci naagu ak ki koy déng-déng yëpp ku nekk lañ ko ci wax ak sopp la wa kasaalika naka noonu in xaafa ndeem ragal na an laa yudrika mu bañ a jot alma ndox ma fi waqti ci waxtu wa war a jaate mu yaakaar ay yudrika wa mu jot ko fii ci waxtu wa ba tey nee na bu fekkoon ne yow yoon wi nga aw di dem xam nga ndox ngi ci li ngay nattal li koy mooy da nga ca àgg balaa waxtu wee jeex wala doo ca àgg balaa waxtu wee jeex mooy noonu la dañoo sopp rek nga topp yoon wi dem ba waxtu wi xaaj su waxtu wi xaajee te nga àgg ca ndox mu baax na bu fekkee àggoo ca ndox ma nag nga tiim rek te julli wa man tayammama ku tiim min haawulaay ci ñii tuma asaaba topp mu jot alma a ndox ma fil waqti ci waxtu wa baxda an salla ci gannaaw ba mu jullee maanaam ñii ñu wax koo ci xam ne dangaa tiim julli gannaaw ba nga amul ndox te waxtu wa jeexut kon am na teqale teqale gi nag mooy fa amal mariidu daal aji tawat ji àll si ja nga xam ne la muy jit amutoon mën koo xam ne yu naawiloo dana ko jot li iyaahu moom ndox ma fal yu xidd na baamu ki nga xam ne mënoon naa jëfandikoo ndox ku ko ku ko andil ndox rek la amutoon moo ko taxaw na tiim kon gannaaw bi bu amee ku ko andil ndox sopp nañu mu jëfandikoo ndox ma te baamu julli ga waaye sopp rek la fuñ fi waxee baam rek sopp la wa kadalika naka noonu alxaayif aji ragal ja min sibaahin ci ndegment war na wiya ak lu ak ñoom ka nga xam ne daa mëntoon wuti ca ndox ma ndax ragal ñu sàcc alalam ba ay rab fàdd ko gannaaw ba bu amee jëmmi ndox mooma moom it daañu sopp mu baamu maanaam mu jëfandikoo ndox ma te baamu julli ga waaye moo tam sopp rek la wa kadalika naka noonu al musaafiru aji tukki ji allësi ja nga xam ne yaxaafu dafa ragaloon an laa yudrika mu bañ a jot alma ndox ma fi waqti ci waxtu wa war a jaate mu yaakaaroo nit ay yudrika ko mu jot ko fii ci waxtu wa waaw nee na ki nga xam ne moom ndox maa ngi woon ci kanamam ci yoon mi aw mu doon déng-déng ba xam dana caagam du caag ñu nekkoon xaaral ba waxtu yu xaaj ba waxtu yu xaajee bu fekkee àggoo ci rek say boo tiim daal julli mu def noonu daal di bàyyi ba waxtu yu xaaj mu daal tiim julli gannaaw ba nag mu doxaat rek di dem laata waxtu yu jeex bu fara àgg ca ndox ma kooku daañu sopp moom itam mu jëfandikoo ndox ma te baamu wala yu du baamu xëyru xaw laay ñu dul ñii ñeneen ñi rek ñooy baamu ñu bokk te ñi duñ baamu.
da ko waxee noonu rek waaye am na ñeneen ñu ñu sopp ñu baamu ñu bokk te ñi mu wax ni ki koo xam ne doon na wut ndox waaye daa sónnul ca wut ba gannaaw ba nag bu jullee ba noppi gis ndox ci wetam kon danañ bëgg mu baamu ndax daa mel ne kon daa gàttañ lu woon rek ca wutum ndox ma.
wala yu sell yi du julli salaatay ni yaari julli bi tayammumin ci tiim waahid muy benn min haawulaay ci ñi illa maridun dara aji tawat laa yaqdiru jóg di àttan xalaa masil maay ci laal ndox li dara di ngir lor bu gis mi jóg nekk na ci yaramam muqiwun ji aji sax nee na ñi wax ñëpp nag koo ci xam ne da ngay tiim boo tiimee benn farat rek nga ci mën a julli waaye doo mën a tiim benn tiim julli ci yaari farata ba mu des nag nee na koo xam ne dangaa wéradi bu mën laa laal ndox kooku moom yow mën ngaa tiim benn tiim julli ci yaari farata waaye loolu bu ko jàpp wax ji gën a wër moom moom ñëpp a yem boo xasee bay tiim daal moom benn tiim bu ne benn farata rek la mën a julli waaye mën laa tiim benn tiim boole ci yaari farata moo tax mu ne waxat xii la waxees na ne yete yem moomu dana tiim li kulli salaat ñel yépp julli waxees na jooju mu wax mooy li gën mooy li gën a dëgër mooy day tiimal julli gu ne waaye du mën a tiim benn tiim julli ci yaari farata waxaduru ya nettaleef na am maalik njële ci maalik fii man ci koo xam ne zakkara fàttaliku ne salawaatin ay julli ay yu salliyaha mu julli leen bi tayammumin cib tiim waahidin bi benn moom itam bu ko jàpp daa wax ne nettalee nañ ci maalik ñu ne boo fàttalikoo ay julli mën nga leen a jullee ci benn tiim waaye moom it noonu la lu julli ya bari bari boo xasee ba tiim moom benn tiim bu ne benn farata rek wa tayammumu tiim bi saa yi di nekk na ci pàkk ak taahiru bi aji laab maanaam bokk na ci faratee tiim nga defee ko ci pàkk bu laab pàkk bu laab nag mooy nga tiime ci loo xam ne yoon moo la jox ndigalul tiim ca nga jublu sax nga fàkk suuf si ndax am doo sañ a tiim nag ci fu am sobe waaye jubluñu tam nga fàkk suuf si moom bu fekkee la ngay tiime yoon nangu na ko ca tiim rek baax na waxuwa moom nag maa mooy la nga xam ne zahara feeñ na ala wajhil ardi ci kaw suuf min xaati bokk ci suuf min turaabin ci suufus kese aw ramlin wala beeñ aw xijaarat ni wala ay doj aw sabaxat ni wala suufus xorom nee na lépp loo xam ne suuf la wala mu xeetoog suuf te loxol doomu aadama soppiwu ko rek mën nañ caa tiim ni ki suufus kese wala beeñ wala doj yoo xam ne kenn soppiwu ko ni ki doj yu dëndu wala doj yi kew doj yi teen doj yooyu nga xam wala suuf su jaxasoo xorom yëpp rek mënees na cee tiim bu loxol doomu aadama soppee mel ni nag ciment wala fu ñu raax ciment ni doo ci mën a tiimati ñu lañ koy defee yaddari bu day dóor bi yeddee ci yaari loxoom ak arda suuf sa fa in taxallaq ndem aju na bi ximaaj ñoom ñaar sey um dara nafadahuma mu fëgg leen nafdan ak fëgg xafifan gu ej woyof ne ni ñu tiime mooy da ngay jekki-jekki jël sa ñaari loxo ne ko tegg ca la ngay tiime dóor gi wax jublu ci dóor dëgg-dëgg teg rek la jublu soo ne ko tegg nag mu am lu mel ne ay bant wala xaaxaam yu la mën a yoo xam ne boo ko raayaale ci sa kanam mu gaan la nag kon da ngay fëgg ndànk say loxo loolu rat nga bañ ko raayala ci sa kanam sama yoon sama topp dana masa bi maa ci yaari loxo yi waccaxoo kanamam nga kullaxoo léppam masan ak masa su ko defee nee na nga daal di masa kanam gi ba mu daj loolu mooy njëkk suma yeddali bu topp dana dóor bi yedde yi ci yaari loxoom al arda suuf sa te yoon sama tamit masa yum naahu loxol ndey jooram bi yusturaahu ci loxol càmmoñam bu ko defee nga tegaat sa loxo tegum ñaareel ci la ngay tiime tegum ñaareel boobu sunna la moom na ci ngay masa sa ñaari loxo ko defee loxob càmmoñ bi day ñëw massa bopp ndeyjoor bi bu noppee itam bopp ndeyjoor bi fay ko bor daal di koy massa moom itam ñu la koy defee yecc xalu day def asaabi yadihi baaraami loxoom al yusra bay càmmoñ ala atrafi asaabi yadihi ci cati baaraami loxoom al yumna bay ndeyjoor da ngay jël sa baaraami loxol càmmoñ teg ko ci sa cati baaraami loxom ndeyjoor ndax loxom càmmoñ mooy bëgg massa bopp ndeyjoor bu noppee nañ la dana ko fay bor sama yëmmiru topp dina rombale asaabiha wa baaraamam ya ala zahir yadihi ci bitib loxoom ba wa diraahi ak xasabam ba waxad xanaa te fekk na mu lunkal ah te fekk na mu bank rek xale ci moom asaabiha wa baaraamam ya xataa yeb loxo ba bu muy jot almir faqay ni ñaari conje ya bu fàtte bu fàtte ni bokk na ci ngëneeli tiim ngay tàmbalee ca ti baaraam yi wuti conc la bu fàtte ni itam bitib loxo bi leen taamu nga njëkk koo masa door masa biir bi moo tax ni waxeegun nag ngay teg baaraami loxo càmmooñ ca cati baaraami loxom ndeyjoor ci bitti loxo bi boole ci wéy nag ba ca conc la su su ko defee nag soo weesoo njëlbeen nga daal di ngëp nga nga daal di ngëp mais nekku ngëp sa loxo su may xalu topp dana def kafaxoo tengam xalaa baatini ziraax yi ca biir xasabam ba min tay mir faq yi ci lamukaayu concoom xaamidal muy aji ngëp xale ci moom xataa yóbbu loxo ba mu jot al kooxa tikku jare ba mi ñetti ci loxoom aliou naa bay ndeyjoor anaam bu fekkee masa nga ba ak ci conc la da ngay wëlbati loxo bi nag biir loxo bi nga xam ne masa woo ko woon ci ngay awalewaat loxo bi nag wut ci nag tikku jara yi ba tey baa si tikku jara bi su ma wujur yi topp dana dawal baatina bëxmi yi biir baaraamu dayam ba xalaa zahiri bëxmi yadi yi ci bitti baaraamu dayu loxoom aliou naa bay ndeyjoor nee na soo ñëwee nag xam nga loxo bi loxob càmmoñ bi léegi mi masa biir loxob ndeyjoor bi ñëw naa ñëw nag ba agsi ci teng li ak baaraam yi kon boobaa da ngay jël biir baaraamu biir baaraamu dayub loxob càmmoñ mu tegu ci kaw baaraamu day loxol ndeyjoor maa ngi koy wane nii waaye xëy na kii déglu bànd ko mën a gis waaye ñu ngi koy wane nii daal mat sama yam sama topp dana masa al yusra loxob càmmoñ bi lium naa ci loxob ndeyjoor hakaza niki ni ma lay wax noonu naa bu loxob ndeyjoor mas maanaam bu loxob càmmoñ masaaye boobu ndeyjoor ba àggal na bam ndeyjoor wëlbatiku fay ko bor moom itam masaa ko fa isa balaxa ndem jot na alkooxa tikku jara la masaxam masa kafaxoo tengam aliyum naa lay ndeyjoor bi kafihi ci tengam aliyusra lay càmmoñ ila axiri atraaf yi ba ca mujjug catam ya nee na bu fekkee ne agsi nga nga daal di jël tengale bomb ko ci tengale ni moom wane woon léegi rek walaw masaxa doonte masa woon aliyum naa loxom ndeyjoor bul yusra ci loxob càmmooñ wal yusra mu masa loxob càmmooñ bul yum naa ci ndeyjoor kay facha naka mu ko soobe wa tayassara te mu jàpp ni alayhi ci moom waaw xaba te mu matal almasa masaaga la ajja sa ahoo kon mu doy ko loolu laa wax léegi maanaam li ñu wax ni moom la ñu masaa yi dañ koo sopp rek waaye bu fekk woon bu fekkee fexe nga rek bu benn loxo bu ci nekk raay moroom ja na mu ko mën a raay ba fépp daj rek bàyyiwul fenn rek mu daal di baax wa ida lam yajit ndem amut al junubu aji janabawu awil xaaidu wala aji mbërëg alma ndox li tufri ngir cangaay dayam mama kon ñu tiim ñoom ñaar wa sallaya te ñu julli nee na ko amee janaaba war a sangu farata wala jigéen ju amee woon deret ba mu jeex mu war a sangu bu fekkee amuñu ndox kon dañuy tiim rek di julli ba keroog ñu am ndox fa isa wajada ndem am nañu alma ndox tatahara kon ñu sangu wala mu yoon yi daa te duñu baamu maa la nga xam ne sallaya julli woon nañ ko kon ci mën doon nag bu demee ba am ndox day sangu ca ngaata la te du tax nag lam julli woon du ko tee baax maa lam julli woon du ma ta baamu ndax nam ko jullee woon baaxoon na ci ndigal la ko jullee woon wala yataw du sañ a laal arrajulu góor imraatahu jigéenam allati ja nga xam ne in qataha dog na an xaa walis ko damu xaydan dereti mbarag aw nifaasin wala dereti wasin bi tataxuri ci laabe bi tayam mi ci tiim xataa yi ji dem ba te mu amee minal maa yi ci ndox maa loo xam ne tata taxaru dana sangoo bi ci moom almaratu jigéen ja tuma maa topp la nga xam ne yeta taxaraan danañu sangoo ñoom ñaar bi ci loolee jëm yi xan boole seen nee na góor gi bu fekkee ni soxnaam dafa amoon deret ba deret ji jeex waaye soxna si amut lum sangoo ca ngaay li li ko war xam ne léegi day tiim rek waaye amul ndox mum sangoo kon nee na moom góor gi du sañ a joteeg jigéenam joojule ba keram yi am ndox rek ba sangu du sañ yotee moom ci kaw tiim bi muy tiim rek noonu te dana aajo mu am ndox mën a sangu ñett ndax soxna si war naa sangu ngir deretam ji jeex te bu fekkee jote nañ ñoom ñaar kenn ku nekk dana amee janaaba war a sangu ba tey waaye loolu nee nañ bu fekkee dafa yàgg ñàkk ndox gi dafa yàgg ba mën a am lor ci moom kon dana mën a joteeg moom ci kaw rek tiim bi muy tiim maa li ñu ko aaye woon ci du sañ a joteeg moom ci kaw tiim bi muy tiim rek faaw day bàyyi ba mu sangu bu ma day am lor rek kon aayetuñ ko ko wa fi baabi jaamihi salaati nekk na ci buntu jaamihi salaati cheyun dara mi masaayu li tey moom ci masalay tiim am na ci kanam buntu bu ñu tuddee baabun jaamihun fi salaati boo ci àggee dana am lu wax ci tiim